alors Abou ñu ngi lay nuyu. waaw maa leen fa fay yéen. non ba actuellement bu nag may woowee Alioune quoi. Ah, la <laughs> ñu ngi lay nuyu bu baax. gis hmm. laat la. waaw merci beaucoup maa leen di nuyu njëkk laaj lan la mën a xaar ci dernier épisode Karma. waaye la ma rek tuuti rek. mais bu tuuti suspense la garaawul <laughs> xaar leen ko rek. <laughs> yàggatul la jàppal non yàggatul ah, non yéen loolu suspense la yàggatul quoi. rôle bi nag deuxième saison bi yaa nekk acteur boo xam ne bokk nga ci acteur phare yoo xam ne ñi ñi seetaan nañ leen même bu fekkee dañ leen critiqué seetaan nañ la te interprété nga sa rôle ba ñi ñi félicité la ci lan nga xam waaw rôle bi doon na doon na loo xamante ni euh, du ma ne neex ma neex na ma quoi parce que dina métti métti na neex na parce que su ma génnee damay sonn mais sant yàlla quoi damay xam ne dama réussir sama rôle noonu la demee. rôle bi rôle bandi la rôle góor bi toroxal jabaram la ñu bëri di nga gis ay commentaires yoo xam ne dinañ la saaga wala wax la loo xam ne métti na la est-ce que loolu tamit yaa ngi bàyyi nga ko xel wala am nga loo si dund loo xam ne. waaw loolu laa expliqué parfois dina xaw a métti tuuti parce que dafa neexul nga génn ñu lay saaga ñuy saaga ñuy saaga sa yaay wala ñu lay wax loo xamante ni yow doon lu la neex dafa metti mais dañuy xam ne suñu joob la ñoo ko apte pour def ko dañ koy sant yàlla quoi. waaw est-ce que regretté woo non non regretté ma si dara yaa regretté ma si dara saa bi affaire bi yokkuwaatoon ni ma dolliwaat yeneen. <laughs> xaalis bi am na ku ko jël taal ko. non xaalis bi kii bàyyi ko kii. taal ma sàmm. xaalis bi man sama xel mi ngi nii tapet la xaalis bi taal ko. non tapet la bu gisee xaalis boo xam ne baaxul xaalis boo xam ne ci ay luubal la ay oto yu baaxul ak ay sàcc kenn xamul boo ko jàppee bu mu munti doon. da nga koy taal. ñu xel mu nga woon ci xaalis am na wenn dencal ñoom. xam war a moom fan la ko ak fan la jógee mooy yaayam kan mooy papam kan mooy jabaram mais koo xam ne doo gis ak gis ak yaay gis ak jabaram. bandi la xamoo faramason la faramason la. Baye Fall faramason amul. jërëjëf waaw amul mais mën na ko jël xam nga rek mu booboo ko quoi. Ah, ana affaire yi. pour ñu nax ñu yaakaar Virginie mi ngi dund pour ñun Virginie moo ko téye naka te yoo. ah mais waaw mais nax boobu nga ñu nax. waaw mais rendez-vous léegi léegi dinañ ci xam dara waaw. mais abul. kan enni. moo toroxal sama rakk. yow tamit dëng abul dafa dëng mais abul nit ku baax la nag c'est que li tax mu dëng jabaram moo ko def moo tax mu dëng. mais loolu xaalis moo ko jiital moo tax léegi xaalis moo ko fi rôle Abou non changé wul dara sama vie ni ma meloon bu njëkk ba tey noonu laa mel ñi ma doon àndal ñoom laay àndal ñi ma doon waxal ñoom laa continuer di waxal amul dara lu mu si wàññi